silence cathédrale silence bi nga xamanteni euh, fidèle catholique, catholiques yi ñu ngi koy dund actuellement ñu ngi ci dernier virage u pèlerinage Popenguine 135e édition bi nga xamanteni ci année 2023 bi la donc euh, c'est très rare nga gis de euh, pèlerin bu ñëw té jaarul fi ci grotte bi nga xamanteni Vierge Marie Noire bi fi le siège donc fidèle catholique yaa ngi noonu ñuy ñëw di def ay intention de prière di di di di di di prière donc gis ngeen leen ak seen concentration noonu voilà silence bi nak mu ngi deg régné do dégg presque bruit. Popongin, suñu sanctuaire marial, ah donc c'est vrai église bi basilique bi c'est basilique bi c'est l'une des plus grandes basiliques comme yu Rome mais Mariama sanctuaire marial Nous ma et nous messe mais il faut que je rosaire parce que Mariama yaay la yaay yaay Insa donc moom moo jur Insa donc moom daf ñuy pousse chaque fois ñu dem ci Insa donc moo tax ma ñëw di ko di ko tàggat. mënu ma ñëw Popenguine te ñëw ma ci Gourel moo tax tey dama xëy rek ñëw def sama rosaire. sama mari ci dund catholique bu ñu nekkee xale mariama la ñu dënk suñu suñu parents yi suñu yaay suñu jàppe pap yi ak yaay dañu dënk mariama donc li prière bu ngay gën a mën chrétien bu nekk chapelet donc chapelet ngay ngay gën a mën donc moom ngay continuer donc moom ngay continuer donc chapelet chrétien boo ne euh, ñaanal la plupart chapelet lay def am na yeneen ñaan mais chapelet lay gën a chapelet moom ñëpp a ko mën ñëpp a ko majorité bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent mën nañ ko

mais ku ko xam doo ko mës a bàyyi. maman Marie yaay la d'abord te au sein de l'église soo bëggee sa ñaan gaaw a yegg da jaar ci moom comme ni mu ko defoon aux noces de Cana dafa ne faites tout ce qu'il vous dira mais soo jaaree ci moom pour dem ci doom bi jaaral ci yaay ji rek loo bëgg di ko am maman mari moom yaay la dafa boole ñëpp uuf. dafa uuf ñëpp soo koy ñaan ah man de ba ma ko commencé ñaan bokk ba ma xàmmelu ko bokkul ak samay parent li may jël mais ba ma xàmmelu ko man mooy sama yaay mooy sama yaay njaboot mooy sama yaayu kër moo lépp daal sama kër lépp moom maman Marie mooy sama lépp c'est une porte daal c'est une ça fait quoi, plus de 10 ans, je ne suis pas venue prier ici, mais aujourd'hui j'en ai profité, surtout pour rendre grâce à mon mari pour les bienfaits que j'ai eu pendant toutes ces dernières années, surtout cette année-ci. Donc me grâce énormément. Euh, j'en ai profité aussi pour venir voir le nouveau sanctuaire à nouvelle grotte Boubès à part déposer à ses pieds les nouvelles prières que je veux. En plus de rendre grâce. vous avez l'accent aujourd'hui Aujourd'hui, surtout la grâce du mariage après son mariage, euh, l'évolution professionnelle encore plus. Voilà. moo am ma ni presque mooy lépp mooy biiwu pèlerinage bi moo tax ñëpp di jóge fu ne di fi ñëw ndaxte bon boo waxee moment Marie rek taa tout dit c'est le moment de l'univers et de tous les mères du monde moom moo sàmm njaboot yi et tout important. boo xam ne bu solide dañ fi ñëw dans la foi marche ba ñëw di tagas di def tout pour moi. pour mu kontaan pour nga xamante ne moom mooy seul boo xamante ne boo ñëwee ñaan ko du la bàyyi ak loxo neen prière yëpp bu ñu prière moom moo amal du ñu bàyyi loxo neen incha allah luñ ko ñaan moom incha allah si semaine bi sax duñ ko gis ndax moom moom man moom si man laa wax quoi importance bu mu am si man saa yu ma jaaxlee bu ma demee si moom moom bu mu ko taalalee samay loxo tiis ko samay problème moom dina ma ko résoudre